ndox bi nga xam ne moom la doon sàkku yàlla yombalal ñu ko mënoon nañ ko sàkku duñ ko am te duñ ci mën dara loolu da ngay jéem rek ba keroog fa sa dooleem yem teen bi am na ndox moo tax tey ñu fii dajee fi pour mën ko inaugurer ñuy sant yàlla bu baax ci xéewal googu waaye tamit di sant suñu yaay ji nga xam ne moom moo financé teen bi mu nekk jigéen joo xam ne fii la dëkk ci réew mi senegal nekk tamit jigéen ju jàmbaare ndax bii du premier teewanam compté naa ay teen yu bëri yoo xam ne moom moo ko financé te man yàlla def na man xamu xamuma ko mosuma koo gis waaye saa bu jotee rek dafa may woo ne ma dama bëgg a financé teen mais yàlla tey may ne ko ndam mooy am na ndox yàlla na ko yàlla fay ci jëfam jooju cant bi ak ngërëm bi teg nañ ci sa loxo nga eggale suñu maire ba nga ne ko sant nañ ko bu baax ñu ngi ñaan itam yàlla na yàlla yokk gën a yokk moon moon bi yal na ko yàlla gën a yokk te lu mu ci jublu yàlla na ko yàlla def ba mu gis ci loo kawe njortoom ndax yiw rek la ci soxla yàlla na ko yàlla defal yiw yooyu te dana ko def sax ñun de wax dëgg waa Maasar yi amuñu leen lu dul di leen sant di leen gërëm lii nag nga xam ne teg nga ci su loxo daañ ko sam ba suñu kéemtulaayu kattan ndax suñu njëriñ la même bu ci amee yiw itam ñun suñu njëriñ la ñun ñoo ko war a jëriñoo ñu koy jëriñoo Yeni yi nga xamne yene ko nekkal fi aussi di dox mission bi yal na yalla gëna katanal belungan lu ngeen ci mu bëgg dox rek ngeen dox ngeen ko bëgg dox soxna si suñu dom bala suñu yaay bi def li yal nako yalla yok di mu fu mu bëgg dem yal nako fa yalla yob ñun dañoo kontaan mënu ñu sax suñu wax bu bari man sama xol dafa fess li mom dafa sedd suñu xol torop ndaw si yal nako yalla yok yal na ko yàlla defal jàmm fu mu aw yal na fa yiw yàlla aw jërëjëf suñu waxti lii moom dafa mënul bari sax suñu xol yi dafa fees dañoo kontaan jërë ngeen jëf yoonu ndox moom dañ nañ wàcc nañu tey tey jii moom wax dëgg yàlla coono ndox wàcc nañu jërë ngeen jëf waaw ndax jigéen ak ni mu buggee ndox bu sanguwul du rafet bu sanguwul du du am jàmm bu sonee te rootul du am jàmm moom mu mën a jël teen bi indil ko waa masar waa Mansar di duy di daagu ñun dañ doon duy di waaxu de waaye fi mu ne nii suñu yenoo dañuy daagu fi mu ne nii mu bugg a sa siwo ngay indi ba tey mbaam mu bugg a naan tey tey nga waaxu ba ci fii boo taxawee sa borom bula la seenee ñëw wëggu la kon yal na ko yàlla fay yéen ñi nga xam ne yéen lay yónni yal na leen yàlla sàmm kii nag li ñu gënoon a neex mooy ñu xam turam rek di ko woo téléphone rek suñu xëyee ñaanal ko suñu gontee ñaanal ko suñuy di ñaanal ko waaye comme mënuñoo am loolu yónnee nañu yal na ko yàlla jàppale. ndox mi neex na ndox mi neex na ndox mi xooj xootul noo mën a def rek nga duy léegi nag mënoon naa defar teen bi bàyyi ñu waaye defar na teen bi ba pare indi ñu ay goj indi ñu siwo yu ñuy roote indi ñu lépp yal na ko yàlla fay. nous sommes aujourd'hui dans le village de Mansar, dans la région de Fatik. Inch'Allah, pour procéder à l'inauguration de ce puits qui a été financé par euh, Parfait Inconnu, bah, inconnu à travers notre association, inconnu à travers ce village, mais connu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui connaît tout le monde. Vous pouvez le voir, alhamdulillah, le puits est bien terminé. Donc le carrelage, alhamdulillah, mashallah. Nous sommes, gestion de passage aujourd'hui, donc nous avons posé le tableau donc il a une petite finition juste autour du tableau, Inch'Allah, qui se fera prochainement. Donc la finition, elle est belle, l'eau, elle est bonne, abondante et douce. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait la baraka dans ce puits et que l'eau est très très abondante. Les villageois sont, sont, très très contents. Donc pour cette parfaite inconnue qui a financé ce puits, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous bénir ainsi que votre famille. D'après les informations qu'on a, ce n'est pas votre premier puits, c'est votre quatrième ou cinquième puits. Nous demandons à Allah subhanahu ta'ala de vous faciliter et, vos euh, moyens pour pouvoir, Inch'Allah, financer d'autres puits uniquement pour sa face. Nous demandons à Allah de mettre tout ça dans votre balance de bonnes œuvres, le jour du jugement dernier. Que la face de vous, Inch'Allah, une future habitante du paradis Firdaus en compagnie des prophètes, des saints, des vertueux. Allah subhanahu wa ta'ala a vu ce que vous avez fait, donc Inch'Allah, votre œuvre ne sera pas vaine. Barakallahu fikum, jazakum khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.